asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ñu daal di àddu si mbirum kii di oustaz Oumar Sall mi nga xam ne nag démb daal di nay am ab libération moom oustaz Oumar Sall mi nag ak mbégte dal di na koy am gannaaw ba nga xamee ne nag ñibbi na fëre sa këram moom oustaz Oumar Sall dongoom yi nag daal di nañ koy gàttanu gàttanu bu jéggi dayoo ndax sax ñoom bi ñu déggee libération oustaz Oumar Sall mi kan nag libéré nañ ko ñoom ñëpp dañ doon génn di siwile si mbedd yi taalibe yi nga xam ne nag moom oustaz Oumar Sall yore na leen sa daaraam ja mu bari si nag sax ay jirim yoo xam ne moom oustaz Oumar Sall mi daal di leen gàddu moom oustaz Oumar Sall nag ba muy wax nee na nag ma ngay sant bu baax a baax ku si mel ne docteur Ahmed Lo ak ñu si baree baree bari jotuta tudd ay turu sant daal na leen bu baax a baax di tamit di gërëm bu baax a baax a baax justice su Sénégal liggéey bu rafet bi nga xam ne ñoo ngi koy liggéey di kàddu oustaz Oumar Sall ak ñi nga xam ne nag ñooy garder li nga xam ne nag moo de prison yi moom oustaz Oustaz Omar Sall sant na leen bu baax a baax daat leen di gërëm mu mbégte gu rëy a rëy daal la Oustaz Omar Sall am ginnaaw ba mu génnee fa nga xam ne nag fa lañ ko naroon a dugal moom Oustaz Omar Sall. ak mbégte goo tax gu tax mu daal di wax ka ne nag sax moom tey jii nag nak la jëfandikoo maanaam nag ngir sant yàlla bu baax a baax ak gi nga xam ne moom Oustaz Omar am na ko ak ndongo daara yi ak ñëpp ñu ko doon jàppale ba tax mu ne nag journée